mbokkeen tax na di safoo setaan AGT news dalee nag jàmm ci xibaar maam góor Diazaka dal di sànni ay xeer ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko moom nag daf doon félicité kii di Youssou Madjiguène Ndour ci impact groupe Safar bi nga xam ne daal dina koy inauguré waaye nee na ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko au lieu mu jël référence ci Youssou Ndour ko moom dafa dem fële ca suite beauté di fa nekkee naka sudul noonu ba tax am ab procès bu ñu teg ci ab ndoddam kon nag na wuy ji ca na mu waree loolee nag waral ay détracteur am ci réseaux sociaux nekk ndaw ñi ànd ak Ousmane Sonko nee nañ ko daal yow maam góor Diazaka yow moomee yaay ki nga xam ne tekki woo dara ci dëkk bi yow mi nga xam ne sax dafa am ab verbe buñ la utal muy jasakalisé ndax amoo ku la sopp amoo ku la topp moo tax yow saa su nekk li mu am mu daal di lay métti waral saa ngay dal ci kawam waaye naka la nga xam ne moom ngeen di bañ yow ak Macky Sall ak Youssou Ndour mooy que ne kii di Ousmane Sonko dina nekk candidat te il sera par la grâce de Dieu le prochain président de la République du Sénégal mbokki internet yi safoo setaan AGT News abonné leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am